mu ngi ci daje gi ñu daje ci Salmak ci la giir yi xamante ba may kilifa yépp feeñ foofu la la mayu Mawal Anta Sall feeñe mu raw leen lool ci rafetu jàngale ak dëggu fiq wérug fiq ak dëggu mujj nag mbooloo yëpp nag daje di fa daje. ñii di sàkku ci xam-xam. ñii di laaj si lu jëm ci seen diine. laaj joor am ci moom cofeel lool lépp mbiram lu lépp ci ay mbiram daan ko ko laaj ba ak xaritu dox seen diggante ba may ko. bokkam mu jigéen doomu baayam loolu lépp nag moo ba mu ngi nekk ci biir kàttan gi rek mu ngi am doole lool ba dogalam suñu borom yóbbu ko ci mu song waa siin mu doon dëkk siin nag dëkk bu tuuti xaj na sax li ko yóbbu ci woyofal gi mooy xeebugum xeebu ci moom xeebugum xeebu ci moom moo tax mu song ko ak it eh, dafa tàmmoon a not lool rek ndax boobu not na Saalum not Jolof not uh, Buuru Kajoor ak armée bi yëpp nekk ci suufam nekk ci ronam ci ron kilifteefam moo tax rek mu songee ko kàttan goo xam ne sax waa siin waruñ ko mën a leen waaye nag doole jëpp nag taxul rek mu ànd ak nos daf organisé wu dal bi mu nos wutit ñoom ñu ngi waajal ba jekk ngir fas yéene dee ba jeex tàkk ñoom itam maa ba jiitu di dox arme bi topp ci ginnaawam amuñ lu may daal dégg rek Euh, kën yi tijji tijji mel ni bu ma la ko waxati nit ñi di wadd di rot ne xobi garab yu wow lu càllimee romb ñu jam ko jam-jam yu bari muy nàcc yaram yépp fees del ak i góom di nàcc ak i deret di nàcc mu wóor kon day dee rek waaye ndax daw moom xelam xalaatu ko boobu mu continué rek dàqaw fasam euh, di défendre boppam ak doole ba ñum jaakaarloo ak ñoom waaye wóoru leen ginnaaw beneen kenn ci euh, ñi ànd àndaloon sax ñëw na ngir bëgg a wëlbati kanam gi mu jëm xibla mu juñu ko ne ko bàyyil ngir diragal dina lool day nuru xeetu daw ab xare ndax bu fekkoon ni bu fekkee kanam dafa jëblu feneen fu dul ci fi xaar xaru xare bi nekk rek dañ mën dafa daw moo tax mu gàntal loolu moo tax ci noonu la faatu arme bi dal di euh, dagg tëgg boor dem seen daw waa siin dellu siin loolu daal mooy mujj ma ba bi mu faatoo nag euh, ñi ko wuutu ñoom dañoo continuer di wattu li mu li mu jot a ubbi rek ci Saalum waaye foofu rek la ñu nag Lat Joor nag ci noonu la delloo Kajoor euh, te fekk ensemble ba nekk Kajoor nga xamante ne ñooy falaka folli ñoo folli maajooja xalaata fal Lat Joor moo tax ñu woolu ko tubaab yi it diir bu maajooja sàkkoo ci ñoom mu dimbali leen ñu dimbale ko ba mu dàq Lat Joor boobee lañ daal di am am ab cër ci ensemble bi nga xam li ñuy defar dañ ci waxtaan ñoom ci noonu la ñu waxtaan ak tubaab bi dañu bëggoon fal Lat Joor ñoom dara ñu leen ñu ne waaw loolu kii léegi moo tax ñu woo Lat Joor ñu fal ko fol li mu des fay at nag ba ak juyoo am diggante ak tubaab yi ñu ray ko dal di téyel réew mi seen bopp ginnaaw bu ñu ko rayee daal lañ nekk nag di euh, yilif réew mi bu wóor nag di doxal bii Lat Joor di dellu Kajoor nag ci la sonal lool la jël loolu Maam Mor Anta Sali ci bëgg mu ànd moom ngir rek mu def ko cëslaay di jubbantiku ci moom ak mu di ko dimbalee ci wàllu diinam yoral ko it àtte bi ndax gisul kenn ku ko doyee ni moom loolu Lat Joor moom la waxoon moom la sàkkoon ci Maam Mor Anta Sali Maam Mor bi mu xoolee gis na ci war waru laabiire gi waar diggante nit ak jullit ak moroom jullitam mu yaakaar ci yool bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni waxoon Seydina Ali ni ko yàlla génn ci yow kenn képp nag nga xam ni moo gën ci yow adduna ak li moo gën ci yow way xonk juri mooy alal yi gën ci alal yi loolu yi moo ko gën moo tax mu ànd ak moom mu dogal ko suuf ci euh, wetam ñu di ko wooyee pataar ci wetu cilmaxa la nekkoon mu suuf soosu pataar la ko daggal mu nekk fa di àtte di di nekk ci dëkkam bu àtte jotee mu ñëw àtte si bu noppee delluwaat nekk ci lam nekkoon muy jàngale ak di tontu laaj yi aju ci dina li lépp nag sëriñ bi mu ngi nekk ci peggu woy juróom boobu yi muy moom ant sëli ku ne xam na ni sopp yu mel nii faaw mu bàyyi ci xelum ku ñëwee ni sëriñ bi du ko bay ci rek mu romb jàll noonu du ko romb dina fokk mu xalaat ca gëstu ca kon xam nañu ne mbir yii fi romb sëriñ bayu ko noonu rek mu jàll dem fokk mu xool dëgg dëgg la ko waral xalaat sew-sew yi ca am ndax li muy bari barikat weesuut ñaari mbir yi mbaa benn mbir bëgg a note ak bañ ko la not bëgg yëlefe bañ ko yëlefe bëgg kilite bëgg yëlefe ak bañ ko yëlefe ñaari képp moo fi indi coow li mu ne boo xoolee kii di Maba gëm-gëmam moo ko póos ci mu war a jëfandikoo doole ngir tasaare gëm-gëm boobu ñee ay aada képp lañ doon kii di diine la doon xeexal ñee ay aada lañ doon xeex muy sama maam fi ne ko nii lañ daan doxee kon kenn du ko soppee wax jëpp foofu nekk Lat Joor maa ji jiw lañ saq di bëriwul loolu maam dafay yàgg lool kon maa war nii la war dox ak nii dara war ko jël soppi kenn de man waa ci gën rek diine dal ak aada biñ nekkee ci xëccoo yooyu nag am benn force jàmbur bu am doole te xee te yeew bu leen bett fekk ñu tasaaroo doon ay kuréel seeni pas-pas sax xaw a wàññi ngir coono yu bari xàjjale ko yaatu lool ba nit ñi sax tayal ci ñoom bañ ne ngii sax force bu bees bii muy tubaab yi sax ñëw yële leen léegi ndax dañuy am jàmm loolu am na sax ñu dox ci ñu ci dox sax ci loolu nag ngir sàkku sàkku tubaab yi ngir ñu ñëw daal foqat ci nguur gi nguur gi nii noonu nag tubaab bi ñëwee euh, foqat ci lépp ci loxoy ñëw ñi nag mbir mooy mu delloo ko ci teg ko ci palaatam ci la ñépp euh, ñëpp nag delloo ñenn ñu ne dellu ci seen baax ku ne xam na ni sëñ bi famille bi mu bokk ay sëriñi diine lañu di de xamuñu woon lu dul jàng ak jàngale sëriñ bi it mësta dañ di sax ci ñaar yooyu muy jàng ak jàngale diir bu gàtt boobu nag soppiku yépp jaar na fi romb ko muy muy gis muy ñii di yëkkatiku ñii di daanu ay nguur sosu ci kanamam ay nguur daanu ci kanamam mu màgg nag ci diggante bii di xool jële ci nag ab xam-xam bu wóor ak bu setantal ba loolu yi mu woyofal àdduna ci moom mu ko woyofal àdduna lool mu sax di xool àdduna ak waa àdduna xoolinu xeebel lool ak di leen re ak retaan mu ni suñu borom nag moo ko teel teg ci aw yoon te noonu la baaxoo jëflante ak yonenteem ak nitam yëpp nit yëpp rawatina nag mu amoon fitra te mooy bindu bindu bu set wecc boo xamante ni jikko ju rafet la yoroon judduwaale ko ñu nàmp yaayam woy juróom wu jigéen woy juróom woowu di soxna jaara nàmputal ko pas-pas yoo xam ne daf ko nàmpaale màgge ko loolu moo tax mu dox ci tawfiq ci yoru jub moom sëriñ bi ba ay mboolem ay yëngutoom ak i dalam la ca daan feeñ lu wuute la ak euh, li ak maasam di dox di def ngir ñàkk jaxasoo ak jamono bu ne muy sax ci béréb bi jaamukaay yàlla yi ma ne jàkk yi ak takkoo ak jataayoo ak nit ñu baax ni jamono bu ne it muy soxla wala ko amal njariñ xamul ay caaxaan xamul am pox yàlla yombalal ko ak mokkal mu teel a mokkal alxuraan dugg ci njàngum xam-xam daan ko jàng ci waajuram ndax boobu waajuram mi ngi bokk ci borom xam yu mag yi nga xam ni seen jataay ñiy doog a tàmbali ak ñiy jeexal ñëpp dañ fay daje at rek yu néew la raw ñëpp raw ci fànn yëpp daal di dogu nag dogu gu tar jëm ci lu koy amal njariñ ci wàllu diineem daan yu xamtiku lool di xool xam-xam yi nit tasawuf yu jëkk yi soobu yët seenum ngir ci dëddu àdduna ak ci teggin